après manifestation bi est-ce que jàpp ngeen ne loolu dina am lu mu créer ci bu fekkente ne au cas où le président peut-être décidé woon na pour ne day présenter wu troisième mandat. waaw xam nga tey jii nii le président Macky Sall. Mhm. xam nga politique moom l'intelligence politique veut que lu am nga am ci une bonne lecture et ñi mobiliser wu ñëw. contre le troisième mandat. Pas seulement ça, hein, mm, Bien mais contre aussi la liquidation des adversaires politiques. Mm-hmm. Parce que c'est ça le sujet actuel, hein, les Le troisième mandat qu'il veut faire, bi nga xam ni moom warul bokk ak ñi war a bokk ñëpp ñi mu bëgg éliminer ce sont les deux en même temps. Mmh. donc bu amee une bonne lecture politique dina xam ni les populations ne sont pas prêtes pour bàyyi ko mu am troisième mandat. bu amee une bonne lecture dina xam ni les populations ne sont pas prêtes pour bàyyi ko muy éliminer. ay candidats à l'élection présidentielle parce que bu leen loolu ñorul woon tey mobilisation bi ñu def l'autre jour du ko def moo tax na déglu son peuple gis nga ñi koy wër yëpp naan ko troisième mandat le jour où il tombera à la première seconde doo ci gis kenn <laughs> ah dal na fi ñeneen ak ñeneen et lui-même le disait et lui-même il faut faire très attention gis nga le président Macky Sall j'ai l'impression que gisul bunt bu ubbeeku pour moom et je lance un appel na gis bunt bi ubbi ci moom mu dem jëli ko c'est une grande porte moo gën muy jaar fenêtre yi la grande porte qui s'ouvre mooy ban mooy tey jii nii Afrique quoi qu'on puisse jëlal sous région bi ni mu demee coup d'état yi am et aut jafe na mhm. nga gis un président bi nga xam ni am na légitimité bi mu am ba 25 février 2024 s'il ne fait que deux mandats dem yoonam mhm. bant bi nga xam ni le président Nelson Mandela bàyyi na ko fi mhm. mu doon bant bi nga xam ni amoon na voix di wax pour toute l'Afrique bant boobu ñi mu koy xëccool biir Afrique dootul bare président yu génn am cette légitimité de porter la voix de l'Afrique dootul bare donc bu bàyyee ñi war a bokk ñëpp bokk bàyyi détenu yi ñu dem bàyyi poursuites yi muy def nii contre le président Ousmane Sonko bàyyi ko mu bokk sénégalais yi nga xam ni ñoom ñooy ñi war a tànn tànn ki nu war a tànn mu def une sortie honorable mais il sera honoré la signature du président Macky Sall elle sera même beaucoup plus puissante que la signature du président qui va le remplacer mhm. et moom dina am des positions yi nga xam il sera même beaucoup plus puissant que le président qui va le remplacer et il va parler pour l'Afrique mais loolu noo ko fay bàyyee naan yaa ngi jël une fenêtre pour un troisième mandat bi nga xam ni mënoo ko am et même si par extraordinaire mhm. extraordinaire tu l'avais doo ci sax doo sax tëdd ak jàmm parce que même pétard bu tàkkee nga ni ñoo ngi sama kaw parce que loo moomul boo ko yoree tu deviens anxieux tu es tu, tu as la peur ba nga xam ni ku romb buntu palais yi far pétard tàkk sax da ngay foog ni ñoo ngi sa kaw pourtant yi nga xam ne ñoo donc pour man ce n'est pas la ci orientation bi mu jël na doon ce grand président qui va sortir avec tous les honneurs mhm. dem jëli les fonctions internationales dont une voix de l'Afrique bu ko defee bàyyi ñi nga xam ni tey ay porteur d'espoir lañu porteur de projet mhm. le président Ousmane Sonko président Khalifa président Karim tous ceux qui sont inéligibles mhm. mu fexe tey jii nii ba ñu bokk te ce projet d'écarter le président Ousmane Sonko qu'on n'acceptera pas et je le dis mhm. il faut qu'il comprenne que yooyu dafa jeex toog ni kii mooy bokk kii du bokk dafa jeex yan moyen ngeen am pour s'opposer à ça il ne faudrait pas qu'il pense que bëgg bokk mën na ko yóbbee mu lëndëmal suñu xel. ba am ay orientation pour jéem écarter kenn parce que en réalité y a une communication qui euh, essaie justement de voiler une autre communication. c'est ça mooy en essayant de faire focus ci Ousmane di ko attaquer di ko. bundu xataal ñu naan du bokk ak du du dina bokk ak du bokk il est en même temps en train de d'effacer la communication que ci moom warul bokk alors que nous on on combat les deux warul bokk le président Ousmane day bokk c'est que day bokk ça il faut qu'il le sache. da ngeen jàpp ne peut-être dafa nar a def li wala di wax naan ko waaj a lap ko taalalee jaasi mu jàpp si. parce que il n'est pas plus intelligent que nous quand xam nga li mu xamul mooy ñoo ngi on est pas vieux. mais ñoo ngi waaj yàgg ci langue bi. quand même vous savez bien que j'ai fait dix neuf ans. Bien dans sûr. cette politique là. dix neuf ans mooy boo jëlee ki nga xam ni bi muy dal ndàdd dix neuf ans après mooy il doctorant. à l'université te bi may tàmbali Ndanda boobu j'étais déjà ingénieur polytechnicien donc du duñu ay dof ci mbir mi xam nañu li muy joué carte bi muy joué carte boobu du ko am carte bi mooy moom du bokk le président Ousmane on se battra pour que mu bokk ñi mu war réhabiliter on se battra pour que mu réhabiliter mu réhabiliter leen ñu organiser des élections libres et transparentes et lui son mandat qui doit finir le 25 février 2024 mu jeex ak jàmm réew mi nekk ci jàmm ñu liggéey ko. parce que nag. mën nañu liggéey réew mi te dañoo war liggéey réew mi. ngeen liggéey réew mi te war a liggéey réew mi loolu nga wax mais euh, euh, souvent su may dégg euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci pouvoir bi en tout cas di wax ne président Macky Sall war na mën a bokk ci élection yi bokk na ci argument yi ñu teg en tout cas depuis quelque temps mooy boo xoolee la classe politique ñu wax ko de manière simple Macky Sall est l'homme le plus sûr par rapport ak situation wu réew mi situation wu tension bi ñu nekk ak le cercle de feu b nga xam ne ñoom moom la ñu wax ne moo wër Sénégal pour ñoom Macky Sall continuer moo gën a dal xel. ku wax loolu. ñi ñi farag moom. waaw xam nga yow. Mhm. tënk nga tënk nga wax ji. Mhm. wax ji farankulaay na ñi farag moom. mais xam nga ñu farag moom. mais est-ce que l'argument tient de dire que ni. mais tu sais bien qu'il ne tient pas. Oui. il ne tient pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui mhm. le Sénégal jusqu'au moment où je vous parle est un pays stable. Mmh. un pays de paix. et on n'a pas élu le président Macky Sall pour la stabilité et la paix du Sénégal qui était déjà là. on l'a élu pour que du point de vue social du point de vue économique du point de vue du point de vue du point de vue yi nga xam ni day toucher le quotidien des Sénégalais ci yooyu lañ koy élire pour mu régler ko mhm. et il se trouve que yooyu la réglé wul donc tey ñi bëgg wax paix à partir d'une instabilité supposée mhm. bi nga xam ni ñoom moom la ñuy travailler à créer mhm. parce que travailler à créer une instabilité mooy ngay persécuter des porteurs de projet pour mën a jëndee maintenant la stabilité par le maintien de Macky Sall même je pense que yooyu kenn mën leen ci yóbbaale. tu crées le fa jindee maintenant sama toog par naa éteindre le fa ñun ñu war a doon ay ñi nga xam ni suñu xel màccul ba ñu wéy d'accord noonu léegi finalement feu bi nga créé pour mu dañ il faut nga toog fayal sa bopp justement su fekkee c'est pas ça le est-ce que am na une est-ce que am na une opposition wala des challengers du président de la République yoo xam ne il rassure les Sénégalais parce que bu ñu déggee cette situation de tension bi ñu nekk le gatsa gatsa bi nga xam ne waaye yeewu askan wi yéen ñëpp a koy euh, yéen ñëpp a koy wax ku ci nekk ne Macky Sall bu deful nii ñu def nii finalement est-ce que ragalu leen Sénégalais dem ba ne ñii il ne rassure pas en fait. non xam nga. Mhm. aujourd'hui ñii il ne rassure pas moom euh, du waxu dara. fii amul kenn ku fi wax li président Macky Sall waxoon en son temps. Mhm. xam nga dama bëgg ngeen di dellu si ci archives yi. parce que am na ñi nga xam ni xëy na fàtte nañu. mais seen loolu la ngeen di fàttali gisoo fi benn opposant tey bu ni si le président insiste le troisième mandat on va le déloger au palais loolu Macky Sall wax na ko est-ce que dégg ngeen tey jii fii may wax ak yéen ba tey mhm. benn opposant au Sénégal wala benn opposant dans Yewwi Askan Wi qui a tenu un pareil langage déggu leen ko mhm. donc lui il a dit pire parce que quand même ce n'est pas ce que la personne dit qui est dans son cœur et vous le savez très sincèrement sinon lui il ne serait pas président bu fekkoon ni loolu mu wax en son temps la que le président Ablaye Wade toppee woon mhm. il ne serait pas aujourd'hui le président de la République et en son temps moom li mu waxoon les président Moustapha Niasse président Idrissa Seck ceux qui étaient avec lui en compétition amul lenn ku ñu wax lu ñu tooy te pourtant moom la Sénégalais yi fal te moom moo waxoon loolu donc ça n'a rien à voir parce que quand même ce qu'il faut comprendre mooy ñun on des leaders politiques mais on n'est pas quel que soit aujourd'hui l'espoir qu'il porte ci ñun les Sénégalais restent souverains boo ñëwee loo bëgg def te d'accord ñu ci il te freine il te freine à la prochaine élection avant même la prochaine élection les élections intermédiaires il te freine mhm. donc tu peux pas faire ce que tu veux donc il peut pas aujourd'hui considérer que ñi fi nekk rassuré wuñu ko mais le président Ousmane Sonko bu yàlla defee mu doon président de la République du Sénégal tu penses lu ko man mi bu yàlla de mu doon le président de la République du Sénégal tu penses damay jël Sénégal def lu ma non les Sénégalais sont là à nous observer donc il faut comprendre que mënul tey jii nii nii rassuré wu ñu ma rek damay toog le problème c'est pas entre lui et nous le problème c'est entre lui et les Sénégalais et nous et les Sénégalais il faudrait pas qu'on ramène mmh. le débat entre kii rassurer na ma ak kii rassuré wu ma comme si il s'agit de. non là waaw je waxuma waxuma rassurer président de la République mais rassurer les sénégalais yi nga xam ne in fine ñoom ñooy tànn. mais les sénégalais. Mhm. s'ils n'étaient pas rassurés daanu jógee ci élection législative ça fait même pas aujourd'hui un an. Mhm. ñu jël la coalition l'intercoalition jox leen 47 pour cent des suffrages. et la coalition Yewwi Askan Wi ci élection boobu mooy coalition bi mujj. Mhm. tàmbali campagne am. ñu ci bëri tàmbali leen seen campagne presque une semaine avant dafa tombeek tabaski mhm. le dimanche la campagne bi tàmbali ñun on a commencé le vendredi qui suit cinq jours yu ñu rate ci campagne bi et quand on s'est mobilisé sans notre liste mhm. titulaire ouais. quand on s'est mobilisé on a fait le tour du Sénégal je l'ai dit tout à l'heure en quatorze jours ñu def trente-neuf départements un itinéraire jamais fait mhm. les Sénégalais à toutes les heures jusqu'à taxaw di xaar Mais ces Sénégalais-là, s'ils n'étaient pas rassurés mmh. de ce que la coalition Yewwi Askan Wi leur présente, de ce que ces leaders leur présentent, tu penses que daanu jël autant de suffrages jox ñu ko. Alors, donc il faut pas mmh. aujourd'hui laisser une opinion qui n'existe pas, préfabriquée par le président Macky Sall et ses amis pour que ngeen foog ni c'est parce que les Sénégalais ne sont pas rassurés on les rassure. moom nee na troisième mandat nekkatul wàllum juridique. président Macky Sall génnoon ci mbedd mi yeewi askan wi président Ousmane Sonko président Déthié président mali Gakou président Khalifa Sall président ay Mbodj génn ñu la ñuy topp duñ topp président Macky Sall donc pour dire que quand bu fekkee baromètre bi mooy ñan la Sénégalais yi topp aussi bien sur le suffrage wane nañ ko mais aussi dans les processions des leaders politiques ñoo koy wane donc loolu amu fi les Sénégalais nous font confiance et je l'ai dit moom laa tàmbalee notre challenge principal toutes les secondes mooy faire de sorte que confiance boobu ñun placé ñu bën ko trahir et on leur donne la garantie que notre génération ne trahira ne pas trahir cette pas. confiance. Ah, alors, euh, Le, le, combat actuellement, c'est euh, contre le, le, troisième mandat. Oui. loolu mooy mobiliser en tout cas le bi nga xam ne Yewwi Askan Wi ci la ci la bokk. l'argument juridique d'abord ñu bari dañu wax ne euh, je crois que Issa moo ko doon sax ne le président wax na ne ce n'est pas une question de droit c'est autre chose ñu bari dañu wax ne c'est une question entre la la loi et la morale euh, yow bi nga xam ne euh, depuis quand nga dugg ci politique ba léegi fi am na loo ci fekk quand même am na ay waxtaan yoo xam ne fekkee nga ko ci langu politique gi tey jii l'argument ban argument lañ war a teg pour wax pour prouver que ni président Macky Sall warul bokk ci élection yi dañ naan joxe na kàddoom wala naan constitution moo ko xam nga président Macky Sall. li mu bind ci texam moo ko gën a xam ñëpp. ci lu leer. moom moo taxaw à plusieurs reprises ni man maa bind man maa bind deuxième alinéa bi nga xam ni sax du am jiixi jaaxa ñun nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs mais loolu tubaab la wala du tubaab moom toog nañu moo ko dugal nga xam ni du sax am jiixi jaaxa mais ku bind texte bi nga xam ni xam na l'esprit xam na la lettre ba pare mu taxaw wax l'esprit wax la lettre tey ñu bëgg ñëw dugg ci ay yu kenn xamul non mais très sincèrement quand même le président makki sal mënul ñëw ba fii naan xamul li mu bind mu wax ñëpp ni moo ko bind. mënul ñëw ba fii sur une question qui engage le peuple sénégalais qui engage la respiration démocratique. mu bëgg ci débiné wu il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux que ça li ko dese. Mm. mooy. comme ni ma ko waxee sànq mu emprunter la grande porte elle encore ouverte mm-hmm. na emprunter set grande porte na ko emprunter très sincèrement parce que bu ko emprunter mm-hmm. baax na ci moom mais baax na ci ñu na ah. parce que signature du Sénégal mooy jóg ci kaw a kaw na emprunter cette grande porte bañ a taxaw di topp ñi koy wax le troisième mandat il n'est pas possible le président Abdoulaye Wade mm-hmm. c'est un très grand monsieur li mu amoon ci digganteem ak sénégalais yi président Macky Sall amul genn wàllam te bi ñu demee en 2012 ils lui ont pas accordé le troisième mandat c'est pas au président Macky Sall qu'ils vont le troisième mandat d'ici là la la mu nar a jur mën nañu ko xañ la mu nar a jur mën nañu ko épargner et foofu lan kay woowee fi ñu koy woowee mooy buntu jàmm ngi buntu bu mag a ngi nii pour yow emprunter ko emprunter ko mooy arrêter la persécution des opposants politiques man mii tëj na ma oui pendant dix jours. Mm-hmm. et vous vous souvenez dama génn ci sama siège waa ji ñëw def jël presque euh, plus de trente gendarmes les images sont là. ma jël yóbbu yóbbu ma. brigade de la gendarmerie de Foire. Euh, vers dix huit heures dix neuf ñu transféré au niveau de la section de recherche. jaarale waale sa buntu siège. boo leen gisoon ni ma jaarale mais c' est extraordinaire que dama dama sandwich si benn charge waa ji génn comme on on on on, on transférait un criminel ah. et on a reçu l'ordre jël leen ko indi mais pourquoi pourquoi vouloir aujourd'hui le président Ousmane Sonko war na génn dem wuyu ji alors que loolu am na ba tey nga ni ko du fi jaar alors qu'en 2011 le président Macky Sall fekkee na fekk nañu fi. vous vous souvenez bi ñu ko convoqué commissariat central. absolument il a choisi l'itinéraire qu'il voulait. il a choisi même l'heure qu'il voulait et non l'heure de la convocation. et tous les leaders sans exception qui étaient présents à Dakar ñëpp accompagner ko mu dem wuyu ji génn dem ñibbi. Et pourquoi il ne peut pas encadrer ça pour ses opposants et aujourd'hui di leen persécuter donc pour dire de façon très très très simple mhm. mooy lii mu nekkee na ko arrêté gis nga kuy wax dëgg le président Macky Sall bëgg ko bëgg jàmm réew mi da nga naan que prend la grande porte et libère ses détenus politiques libère ses euh, prisonniers ambulants comme le disait la dernière fois El Malick ak bracelet électronique yi nga xam ni moom la nekk ci seen tànk yi def ko ci arrêter la persécution des opposants parce qu'ils le veuillent ou pas et ça c'est une tradition il y a toujours eu une cohabitation responsable entre l'opposition et le pouvoir de sorte que ku nekk tu as toujours joué ton rôle je le dis ouais. la respiration démocratique équilibrée veut mm-hmm. que l'inspiration démocratique soit assurée par le pouvoir et l'expiration démocratique soit mm-hmm. assurée par l'opposition alors dinaa ñëwaat c'est ça qu'il dinaa ñëwaat léegi ci ci ci candidature yi mais da nga da nga évoqué sax lu am solo mooy euh, bi la gendarme yi tegee loxo mas nga sol tenue quand même faut le rappeler euh, loolu beesul ci yow sol nga tenue certainement mas nañ la dugal ci cellule ba ngay jàng yu demee noonu mais euh, soo gisee tey la relation qu'il entre les forces de défense et de sécurité et les Sénégalais ñiy manifester surtout les plus jeunes cette relation d'animosité bi nga xam ne moo judd seen diggante ba bu ñu manifester soit mu am ci ñu faatu ci côté bi parfois mu am ci takk der comme li xew euh, bërki dem ci Ziguinchor yow bi nga xam ne mas nga sol tenue lan la lay def di gis euh, ces Sénégalais là face aux hommes de tenue non c'est extrêmement douloureux très sincèrement